asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun jàkkaarloo ak seen site Assalaamy TV ñoo ngi am te di leen nuyu eh, di leen balu àq di leen baal àq di jiital ci nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool doole ak wéram eh, ñu toog nag ci weer wu tedd muy weeru koor tey jii di juróom-ñetti fan ci weer wi ñu toog ci pàkk bu tedd bii nga xam ne moo di kër soxna may Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim jàkkaarloo ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke Gaynde Fatma fas yéene seq ak moom rek jataay bu gàtt incha allah ngir waajal bis bu tedd bi nga xam ne la trent mais lay doon war a yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom di alxames ci weeru koor muy bis boo xam ne nag yàgg nañ koo taxawee eh, ci soxna may mën a daan ko taxawee eh, ba ni mu demee àjjana eh, taawam bu baax ba di soxna maam bu sa baali daan ko taxawee ren ji di at mi mu jëkk a wuute laylatul xadar Eh, bàyyi ko ci seeni loxo sëriñ bi nga am eh, pas-pas ànd ko ak sa nijaay sëriñ Mouhamadul Mahfous waaye ak sëriñ eh, soxna Astu Mbàkke ngir waajal bis boobu ana yan kàddu nga yëkkati rek ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi nga xam ne ba nga noppee gis sa maam ja noppee gis sa wayjur wa jël nga engagement ngir taxawee ko ci lay Qadr yi ci suñu kanam aouzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Fallou ñu ngi lay sant mbaax di la gërëm di rafet itam bu baax a baax sa sa taxawaay ak sa liggéey ak sa yaatal ndax foog naa ne li nga def nii lu bees la ci yow te loolu day wane nag xarañte goo xarañ ci métier mi ak yaatal goo ko bëgg yaatal ak itam nag yitte joo ci am ba am foo ko bëgg a yóbbu euh, di sant itam nag euh, ki nga xamante ni moo di euh, sëñ Mountakha di xalifa général des mourides ak mboolem ñi nga xamante ni mooy njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di am mbégte rek dellusiwaat ren jii ci li nga xamante ne bii mooy màggal gi mu di bisub Laylatul Qadr bi nga xam ne moom la soxna May mën na daan def def ko lu mat juróom fukki at jóge fi soxna Ba itam tax lu mat ñaar fukki at moom itam dëdduñu ren jii eh, nga xam ne kon day mel ni bii mooy bis bu njëkk bi ñu koy def seen ginnaaw eh, wax naa ko rek CRD ba ñaar yooyu daje rek eh, day wane ne kon am na benn jéego boo xam ne. war nañu ko seqi kon pas-pas bi ñu ci am mooy li nga xam ne mooy li ñu xam moo di Sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk nam la am bi nga xamee ne soxna may jóge na fi ñu bari doon nañ tiit waaye soxna Ba li ñëw def ci loo xamante ne bii foog naa ne ñëpp teg nañ seen ba ànd ko ak Cheikh Moom Mahfouz bii nga xamante ne bii tam soxna Ba li war nañu ginnaaw sëñ Mahfouz ak soxna Assu ak sama jëmm ji am nañ yéene ak yitte yóbbu ko foo xamante ni dana kawe njortu dana raw fa nga xam ne fa la ko soxna Bali bàyyi woon te day liggéey boo xam ne liggéey bu Sëriñ Tuubaa nangu la te loolu soxna si moo ñu ko waxal boppam danaan ba ci yàgg mu ne ah man ne yàlla bëri Sëriñ Tuubaa damaa nar a fayee fii loolu wax nañ bu benn du ñaar booba day toog nit ñi di lu ne koy indi giléem yeeg nag yeeg lu ne ñu koy juur xaalis bi bari mu ne ah man de yàlla bu dee Sëriñ Tuubaa dama dama nar a fay fii ndax ñoom dara yi fii yitteelu leen loolu la mu doon bari bari gisu ci lenn kon buy bu daal liggéey ba juróom ba ngir ëllëg moo taxoon kon day mel ne su barke bi demee ba tuur ba mel noonu moom sax day day am njaqar di tiit kon maanaam liggéey bu Sëriñ Tuubaa nangu la liggéey bu Sëriñ Tuubaa nangu la ndax nam ko tàmbalee la ba mu koy tàmbali boobu maa ngi ci Daaru Muxti aw yoon amut mooy amut oto amut ndax looy tàmbali tàmbalee ko ñaari ginaar ne reerub Sëriñ Tuubaa la kon foog naa boobu mooy néew na ndax boobu bu amoon xar dana ko dana ko rey bu amoon nag dana ko rey bu amoon dana ko rey waaye boobu ñaari ganaar ci la toll euh, ñëw guddi ki sëriñ bi boobu Cheikh Mouhamadou Fadal moo fi nekk ni mu ko daan nettalee nee na bi ñuy ñëw ànd ak bëkk néeg bi ñëwee ba jub néeg bi nee na da koo ko da ko ne man ñëwuma fëgg sëriñ bi soxna si moo fëggal boppam ndax xamoon na taalibeeg sëriñ Fallou xamoon na cofeet goo xam ne sëriñ Fallou amoon na ko njabootu sëriñ Touba gi xam na ne bu ko fëggee ne ko dama lay indi addee Serigne Touba reerub Serigne Touba bi ma la toggal te yaa fi Serigne Touba kon yaa ko yooyu xam ne lu jàmm dong moo ci topp te jàmm dong moo ci topp ndax ku ne gis ne la nga xam ne lu ko da dem ba da ca rey ay gileem gileem teg nañ suñu ay bët kon waxe Serigne Fallou joojee ba mu ko bis ba mu ko waxee rek cal ba ba takki moo tax ren jiitim ñu xam ne nag gannaaw barke boobu jiitu na ci gannaaw ñaanu gaay yi bàyyi yooyu jiitu na ci ginnaaw liggéey soxna si bu rafet ba jiitu na ci kon am lu ci des yitte yitte ji rek moo koy tëye te nag sëñ Mahfouz takku na ci def ci loo xamante ne bii ak am ci pas-pas boo xamante ne bii jégg na dayoo moo loolu moo tax ba ren ji ñu bëgg nag def màggal goo xam ne day màggal goo xam ne mosu fee am moo tax itam lépp loo xam ne daa dañ ko def ci bis yi nga xam ne weesu na rek yooyu indiwaat nañ ko ak yaata gee nga xam ne daa nañ ko yaatal ci ci bokk yi ak gi nga xam daanañ ko yaatal ci programme yi yaata xam daanañ ko yaatal ci ci xarit yi ak gi ñu daan yaatal ci taalibe yi bëgg daal ren gi nit ñi bu ñu dikkee xam ne màggal gi am na beneen xar kanam bu bees boo xam ne xamuñ ko woon su ko defee nit ñi gën cee xamee kan mooy jëmmi Serigne Touba ndax sëñ moom du fi jóg mukk kon loolu yi sëñ Fallu moo ci sunu pas-pas noonu la ñu ko tàmbalee ànd ko ànd ko ak yéen muy mbooleem journaliste yi di mbooleem taalibe yi di mboolem aussi ñi nga xam kenn ku nekk la ko ci war ndax barki dem lañ jógee ci ab CRD tënk fa lañ fa war def lépp ànd ko ànd ko fas ko yéen daal ànd ko ak ñëpp ndax bis bi dañ koy taxawee suñ wax bis bi yàlla sàkk lay wax da dégg mu ne kat man damaa toog fii nekk jëwriñ ji di ko taxawee waaye bokk yi laa fi toogal ndax di bis boo xam ne bokk yëpp def nañ ko seen bis ndax soxna si dafa jaboote woon ñëpp ndax yàlla da ko xéwale mu mujj fii ci doomi Sëriñ Tuubaa yu jigéen ñi ñëpp nag def ko seen waajur ñëpp def ko seen ndey moom itam loolu mu nangu ko loolu bu ñu mosaan ñëw xam ne jamono boobu kër gee ci HLM defaraguñ ko boobu fii ci kër gi fi leen daa defe réception bi waaye li mbooloo mi bari bari bari bari bari bari mën naa ne njabootu Sëriñ Tuubaa ñoo ko ci ñoroon daawul sax nangu kenn wax fi genn kàddu goo xam ne day day génn loola mu jabooti ñëpp booba sëñ Moustapha Lo sëñ Sall ambassadeur ñoom ñoo daan jiite njaboot Serigne Touba kenn daawul des Serigne Mourtala moo fi daa jiitu ànd ak Cheikh Salih kon ñooñee mbañ bañ demee ba gisatuñu soxna si ñu mot li kóllëre ga ci njaboot gi nga xam ne dañoo toog ci kër gi toogal leen fi kon moo tax Serigne Mahfous waxtu nekk moo naan kat dama toog ci kër gi waaye yéen laa fi toogal kon ñoom ñu ñëpp lañ ko fas yéene àndal ñu màggal ko dundal ko na ko soxna si daan defe soxna Bali daan ca roy fas yéene wane ci li nga xamante ne mooy doole Serigne Touba. Eh, jërëjëf kon tomb boobu leer na ci waajtaay wi nga xam ne jël ngeen ko waaye day mel ne itam am na ay programme yu bees yoo xamante ni bi fas nañ ko yéene waajal ci laylatul xadar yi ba am ci sax lenn ci njabootu sañ Touba yoo xam ne dañ leen ci delloowaat njukkal. Euh, waaw programme bi yaatu na ndax itam loolu dañ ci am principe principe moo di ne euh, bis yu mel nii. dafa war a dekk ay université yoo xam ne dañ ci jàngale euh, profito ci ngir xamal nit ñi lu bari lépp loo xam ne war nañ ko xam euh, moo tax ba day am ay wattaay ndax yow bis bi ñoo koy ànd xam ne bu ñu àggee ba ci bis ba daanaka kenn du tala déglu kenn ndax mboolem dana bari bari waaye boo xamante ne bii loo deful mu jiitu rek boo moytuwut nit ñi duñ ko teewlu loolu moo tax ba le 18 bu ci yàlla àndee ci la ñuy wax daal li nga xam ne moo jëm ci code de la famille. loolu aussi di loo xam ne lu yitteel askan wi la ndax dañ di ay jullit yor ay yor ay njaboot di takk ay soxna di jëflante ci biir societé bi ñu indi loo xamante ne bii dëppawut ak li xam ne mooy suñu diine loola ñu bare bari gàcc ci kon mu nekk mbir moo xam ne dañ ko war a waxtaane xool ban solution lañ ci war a mën am ba en tant que jullit ñuy dund loo xam dëppoon na ak li nga xamante ne bii mooy li ñu alxuraan wàcceel ak li xam ne mu dëpp ak ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi danañ ko waxtaane kilifa yu baree baree bari danañ ko danañ ko teewee buñ ci jógee itam am na ci guddi goo xam ne Cheikh jan lañ ko tuddee loolu itam li ci jublu mooy delloo njukkal ma ngi daa ànd ak Serigne Touba euh, daaw Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tuddee woon tuddee woon ko fi itam ba Bassirou Sarr moom nga xam liggéey na ci lii tax liggéey bu rëy ndax ñaari ginaar sonn sa moo ko fayee ñaari junni ginaar ginaar gu ne junni la ko def jóge fii suñ sang ak mboolem ay rakkam suñu sàllu maam Cheikh kenn desut ñoom ñëpp ñu àndandoo ñoom itam di di di di dundal lool di mot li coloré ko defee moom moom lañ ko njëkkoon tudde waaye loolu ba tey ñu ngi koy ren ji ñu tudd ko Cheikh Issa Diène moom la kenn ku ne xam fi mu tolloon sëriñ bi ak liggéey bi nga xam liggéeyal na ko sëriñ Tuubaa ak pas-pas bi mu àndaloon nga xam daanaka dafa yendu ba ngoon rek ñu wàcce ko ba fu sëñ bi dox rek bagage yi naan ko bul fàtte Issa bul fàtte Issa bul Issa kon kooku am na lu mu amul gis te liggéey Sëriñ Tuubaa moo ko may kon ku mel noonu buñ ko indee di ko waxtaanee ngir taalibe yi xamkat kat yitte ak himma gi nga xam ne moom euh, amoon na ko naka lañ ci war a mën a royee. am na ci guddi goo xam ne ñu ngi koy tuddee njabootu Sëriñ Tuubaa gu jigéen gi ñoom itam dañ fay nekkoon nekkoon kilifa yi soxna May ndax ñoom ñëpp ñoo ko magoon. mu ànd ak ñoom ànd bu ànd bu rafet kon bu demee ba soxna si am bis bu mel nii li nga xam ne ñun moom la ñu jublu wane ne bis bi soxna si moomu ko waaye njaboot Sëriñ Tuubaa gu jigéen képp ñoo ko bokk ndax soxna si ba mu fi nekk moom ñoom ñoo ko daan bokk man ci lu ma fekkee gis naa nu mu ko daan àndee ak soxna moom minatu nu mu ko daan ak soxna mbeen ñooñu man laa fekke la ko jiitu xaj na yàgg na kon loolee moom lañ bëgg a delloo si ba ñu ñëpp xam ne lii moom na lañ ko soxna si defoon seen wayjur na mu ko daa ànd ak ñoom ba ñoom ñëpp jàppoon ko seen bis ñoo xam ne ñun ndono loolee ba tey jii ñu ngi koy sàmm am ci bis boo xam ne dañ ko tudde Cheikh Mame Lamine Bara boobu ñu ngi ko tuddee soxna Faty Penda euh, bis bi nga xam ne moom lañ tuddee Cheikh Mame Lamine Bara moom itam njaboot Sëriñ Tuubaa góor gi lañ ko jagleel ndax ñooñu ñoo fi nekk euh, boobu itam muy guddi goo xam ne tudd nañ ko Sëriñ Fàllilu moom mi nga xam ne moo joxoon ndigal ci bis bi tudd nañ ko sëñ Abdou Lahad mi nga xamante ne moo toxale woon bés bi Daaru Wahab indi ko Touba te dayo bi mu am nii fii ci Touba fii rek la ko mën a amee tudd nañ ko Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo magoon njabootu sëriñ bi moo tax nag ren ji ñëw ci Baara parce que yéene continuer noonu nii njaboot gi toftaloo kon loolu mooy guddi yi nga xamante ne bi moom lañ tuddee ñi euh, kilifa yooyu am na ci beneen bés boo xam ne jigéen yi lañ ko jagleel moom itam danañ fi waxtaan lu jëm ci wàllu xarala yu bees yi nouvelle technologie yi ak yan njëriñ la am yan lor moo ci mën a nekk loolu aussi am na suñu mbokk jigéen ñoo xam ne ñoom lañ ko seqal muy saali xaadi ak ak ak ñu mel na ñoom kon loolu mooy programme bi nga xamante ne bii moom lañ fas yéenee doxal ci laytu xadar gi euh, fas yéene tam nag li nga xam ne moo ci jiitu mooy li soxna daan def mu di kaamil yi loolu itam tàmbale nañu ko ndax soxna si moom danaan bay su mosaan bay ab toll kuutaloon bu mu see bu bàyyee ba noppi xaalis bi daf koy denc bu heure mu séddale ko loolu sëñ Mahfous ak soxna Bali itam doon ko wéyale noona ren ji itam noonu lañ ko wéyale ba mboole fu daade kaamil nekk ci réew mi la ci ëpp day mën naa ne jot nañ barkeel boo xam ne jóge nañ njabootu soxna si dem ci ñoom ba daxal yëpp sëñ Mahfous moo ko bind benn bu nekk mu yëkkati addiyaam def ca mu jëm ci ñoom euh, keroog nee na ma daaw jàng nañ dix-sept mille kaamil dix-sept mille jàng nañ ko te at mu nekk kaamil lay yokk kon mën nañoo wax ne liñ ñu ci kaamil dana ëpp dix-sept mille foog naa loolu rek mën naa yor réew mi kaamil yooyu ñu di ci def ko addee Serigne Touba di ci ñaanal soxna May waaye itam di ci ñaanal suñu wajur fi jóge ba ki dem mu di mu di soxna Bali di xasida yi itam dina ci moom it ñu ngi ko jàng kuréel yeeg ñëpp rek kon daal loolu suñ fàllu mooy li nga xam ne mooy programme culturel bi nga xamante ne bi moom lañ indi ci màggal gi muy programme boo xam ne aussi nit ñi dañ koy xaar loolu moo tax mu am succès bi nga xam ne am na ko te yemuñ ci di doxal yooyu programme at mu nekk buñ noppee dañ ciy jéem a tënk ab téere ngir loolu bañ a réer moo tax même ren ji créé nañ ci benn benn chaîne YouTube boo xam ne bépp conférence boo xam ne mos sañ ko fee def ci leetu xadar gi dugal nañ ko fa nga xam loolu bu àdduna tukki xam-xam la boo xam ne nekk na fa te duutu réer mukk ci àdduna ndax loolu aussi nag mooy tasaare xam-xam te loolu foog naa ne mooy mooy liggéey bi jërëjëf euh, sëñ si Abdou euh, macha allah kon xam naa laaj bu mujj bi rek mooy daayira yi nga xam ne ñoo ŋànkoon Laylatul Qadr ci moom ko te tisaaroo ci réew mi yenn di njabootu sëñ Touba leen di daay taalibey sëñ Touba yi leen di seexi sëñ Touba yi daayira yooyu nga xamante ni bii meenoon nañ soxna May waaye lu ci ëpp mi ngi yokkoo woon ci ginnaaw sa waajur soxna Bali ana yan kàddu nga yëkkati jëme ko ci ñoom. waaw jërëjëf daayira yooyu itam dañu dañ leen delloo njukkal ndax euh, bi fi soxna si jógee. foog naa ci téeméer ak fanweer la doon toll du ko du ko sori eh, bi soxna ba bi fi soxna Ba lay jógee ëpp na ñeenti téeméer te foog naa fi muy wax yow nii ñëpp ñëw nañ bindu ngir fas yéene jëble si eh, coono itam li leen wax moo di ne pas-pas bi nga xam ne amoon nañ ko ci ci Serigne Touba doon ko xeeñtu soxna May doon ko soxna Bali ba tey ji ma nekk. te te te te te li ma leen wax mooy li may faral di wax ci ci Pastef ndax Pastef bu ñu koy natt mën nañ ko natt ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax man xaw ma ko woo Pastef ba muy seeti sëriñ bi bi mu dikkee ci moom ne ko day su ma dikkoon gisuma la waaye ñu ne ma suuf sii doon nga ci dox asamaan si doonal tiim loolu dong dana ma doy sëkk ngir ma jariñu ci yow lépp lu ma war a jariñu ci yow loolu mooy pas-pas kon daayira yi aussi foog naa ne foofu lañ nekk ndax suñu tubaab bi taxu ñu jëf Sëriñ Tuubaa jógoo fi loolu itam moo tax ba ñoom ñëpp ñu ngi fi soxna Asmi ci kër gi sëñ ma fu ma nga fële kon jàpp naa ne lépp loo xam ne daan nañ ko def rek pare nañu aussi pour def ko fu naa ci bëri ñëw nañ ci yow bind nañu kenn ku ne joxe ne bis ci fukki fan yi lañu koy tàmbali ñu xam ne daal dara soppiku fi loolu moom laa bëgg ñu xam ko ñu xam ne dara soppiku fi liggéeyub Serigne Touba la boo xam ne sëriñ Touba moo ko dille ndax Serigne Fallilou booy Serigne Touba moo ci joxe ndigal moo ci dogu mu bis bu mel. jëmmam ju baax ak kaddoom gu barkel googee moo ko sabab lu lépp aussi kaddoom googee moo ko indi kon ñu ànd fa yéene liggéeyal Serigne Touba te xam ne yoon wa ko soxna si tegoon wàcc ko ba na nga ni ëpp juróom-ñaar fukki li nga xam ne mooy sunu pas-pas li nga xam ne mooy sunu yéene te ñu am yàqin ci ne noonu lañ ciy doxe mooy du ci am lenn loo xamante ne bii dana génn liggéeyu Serigne Touba bi. ndax amuñu lu dul lii ndax lii mooy li ñu fi bayeel lii mooy sunu ndono kon lii mooy li nga xam ne mën nañ cee nekk kenn ku nekk ñu di ci nam na ba dem bàyyi fas bàyyee ko sunu njaboot ñu ci nekk ndax liggéey Sëriñ Tuubaa la kon day répp itam di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet ci seen pas-pas ak ci seen kóllëre gi nga xam ne mottali dañu ko di leen xamal ñoom ñëpp ñu leen di xaar fas yéene ànd ak ñoom liggéey Sëriñ Tuubaa rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf